mais maa ngi fay ñoo ngi leen di fay leen béggee bu baax a baax a baax. tey ñu ngi fekk ci foire bi nga xam ne moom la Dabaye organisé ñu bëggoon a xam tey teewaay bi lan moo ko waral. waaw euh, teewaay bi nag du dara lu dul Dabaye day suñu jabar di suñu rakk di suñu xarit euh, bi nga xamante ni am na idée wu def ñëw waxtaan ak man barkaal euh, ñu tàmbali ci di ci dox dès le ku ne xam ne ni defoon na première édition euh, année passée place du souvenir li yoon nag mu buggoon mu gën a yaatu bi ma waxee ma ne ko xool ci xool bi je lui avais yeneen place après on s'est dit pourquoi pas CICES ñu ñëw set si DG Saliou Keita sama xarit di nit bu baax passage Iba Habib sama ay xarit yu baax yu nekk li nga xam ne euh, on a eu à collaborer bu yàgg ma ñëwee tamit vraiment ñu gëm projet bi yombal ñu lépp li nga xamante ni lu waroon tax bis bi réalisé wu ñu def ko tu vois et noonu ñuy soox di soox di soox ba egg si tey vraiment euh, maam ci fierté nag ndax ndax ma ci fierté du dara lu dul d'abord confiance bi nga xamante ni participants yi am nañ ko envers Dabaye ah ak vraiment ñoom tamit ni ñu gëmee projet bi ñëw accompagner ko parce que benn nit bu ñu def lii il mu am ñu la gëm il mu am ñu la gunge il faut mu am ñu ànd ak yow nga xamante ne nag ñoo ko gëm dès le début ànd ak moom ci ñaari édition yëpp ak ñi nga xamante ni ñoo ànd ak moom ci édition bu bees bi yëpp ñoom ñëpp vraiment euh, dama kontaan ci ñoom di leen féliciter parce que démb ba ñu commencé ubbi bagage yi Euh, li ma jaaxal dama wax mais ñi fan lañu ñuy jëlee bagage que dama gis ñàmbaar ci ñoom am bagage ci yoo xam ne da koy xool xam ne lii ça ne vient pas du Sénégal pour nga am ko foog nga voyager pour nga am ko foog nga foog nga bouger tu vois loolu yëpp xaalis moo koy def donc euh, bu ñu amee njàmbaar googu ah euh, am gëm-gëm bi yor loolu ñu yor ci bagage war ko jaay war ko éculer te lu mel ni bëriwul moo tax da bàyyi vraiment initiative bi bu mu ko bàyyi lii at baar sax du jaaduwul dañu war di def euh, trois mois yu jot di def parce que parce que oui parce que bagage yi ñoom am nañ ko mais amuñu fuñ ko jaay parce que jaay yombul Dakar xat ñu ci bëri ci ñuy jënd amatuñu temps di dem ci ay boutique benn par benn tu benn jour ngay am temps dem donc jour boo xamante ne da ñëw ci vente privée foire bu mel nii fekk fekk fi toutes sortes de commerce ba loolu yombul moo tax mu intéressant et que may lancé appel sénégalais yi tamit ah góor jigéen mag ndaw ñu ñëw bu ñëwee fii ci CICES bi ba gis li fi xew ah ñu ñëw jàpp jàppale suñu ay jigéen jàppale suñu ay soxna ah, jàppale suñu ay yaay vraiment parce que jàppale leen moom lu ci gën a gaaw mooy ñëw jënd li nga xamante ne Euh, alors du ñu toog ak yow ba tàggatoo euh, te te duñu la laaj tey ci actualité réew mi parce que bu nekk xam ne doomi réew mi nga te aussi dañuy gis saa su nekk kàddu yu rafet yi nga xam ne da nga koy wax ci réew mi gis nañu nga defoon ci sargal Ndakaaru gi ni mel tey boo gisee euh, ay ndaw jóg di yàq Ndakaaru lan la lay def tamit. waa mais loolu politique la xam nga politique yàgg na ci ci ci ci loolu parce que Sénégal ñun yaruñu ñu ci ñu def politique bu bu bu logique bu loyal. c'est sénégalais euh, fekk wu ñu Lamine Gueye ah fekk wu ñu Senghor fekk wu ñu ah, politiciens yu bëri dégg ñuy wax Senghor ak Mamadou Dia dégg nga ñuy wax Senghor ak Lamine Gueye tu vois dafa mës di demee noonu donc bu ñu demee ba tey par parloo tax ba ci ne ki nga faral dafa nga ne moo ne ci yoon. koo faralul dafa nga ne nekkul ci yoon xam nga ñii euh, def lu mel ni di yàq da koy mettre lu rek mais bon politique la te sénégalais yi ñoo gëm politique sénégalais yi ñoo bëgg seen réew sénégalais yi ñoo gëm seen leader euh, li war mooy leader yi xam lan la ñuy wax leader yi jéem a ñoom ci seen diggante ñu séq lu rafet di ko waxante parce que sénégalais day réagir selon ni leader bi waxee si ko amee bien sûr donc euh, leader yi ñu bu rek xale yu normal bu leader yi normal maanaam di taal ay doomu aadama ci ñàkk seen bakkan ay bien public ñu koy yàq quand même loolu ànd ànd nga ci waaw loolu kenn àndu ci ma la kenn àndu ci ànduñu ci mais du fi xam nga lu ñu mës di gis la donc euh, euh, ñoo ci perte ah, changé wul dara xanaa day compliqué mbir yi sax mais bon ñun la suñu ay rakk la suñu ay mag la suñu ay dëkkandoo la suñu bon doo comprendre. Ousmane ni ñuy doxalee ñoom ñaar politique egg politique nii la mës di mel ah, waaw hmm. ah, waaw. waaw waaw. waaye ma ne la 61 ba léegi ñu ngi sànni xeer. te indépendance ba nëgën ñu ngi sànni la wax lii yàgg na fi dara du fi gan ñun koy ñoo manqué chance rek tombeek euh, nii yomb télépoche yi bëri balu lu waay def léegi mu feeñ léegi waaye yàgg na fi rek waaw donc sénégalais nañu fexe yaraat nit yi sa Sénégal boo demee làmb ji buñ daanee sa bër nga sànni nga damb si si sànni wala nga sànni boo demee football nawetaan bu ñu gañee sa équipe nga sànni boo demee championnat léeg-léeg match yi du àgg barke dem ba jaraaf dajale fekk géejawaay match bi àggul tu vois donc c'est Sénégal. ba bandi ay Sénégal ah bandi waaye kaso bi ci rëbës ak camp naa ak kaso yu juróom ay sénégalais rek fa nekk. Sébikotane ak ay sénégalais fa nekk yaa may ay sénégalais la. du lu rafet mais ay sénégalais la li ci gën a yéeme mooy taal guddi kooku kooku mani kooku politique yëkkati ko nit ñi di nelaw ngay taal kooku la ne la ko yëkkati mais du politique donc euh, mais même manifestation bi amatee képp koo xam ne kagula waaw loolu jaadu na. ah, ah waaw waaw ah, kuy kagule ja narul jàmm bàyyi leen à ah, bon gi. yéen non dafa ndànk rek dama ne maa ne ma lu lu waay di def nag bañ ñu xàmmee ko ci naru ca jàmm dama ne réew ni muy doxee bokkut ak ñun nu ñuy xalaatee manifester ku lu ci kagule doon soyons logiques il faut dire les choses ku bañ ñu jàppale da ngay toog sa kër bañ lu jàpp la da ngay def manifester ni nga ni ko loi bi mais kagule wu jàmm taxul a jóg ku waxuma la tiire sa kaw sax dañ la war a taal. ah dama ne Ousmane Sonko ak Macky Sall ak ku bokk APR sax bu kagulee dañ ko war a taal looloy dëgg parce que manifester n'a rien à voir ak ak ak ak piller dañ dëgg nit ku kagule kagul foo ko gisee rek. jàmm taxu te nag ci suñu biir xanaa waruñu yéenante di lorante ci suñu biir ku la bëgg lor nag wala mu bëgg lor doomu aadama mais nañ ko nañ ko éliminer ah mais bien sûr lu jaadu la. mais Cheikh Senghor waay waaw yàlla. Euh, di leen remercier tamit vraiment ci seen déplacement ndax kuy def lu baax ku ko wax la bëgg waaye kuy def lu baax ku ko wane la bëgg donc euh, li ngeen def ba ñëw wane li nga xamante ne xale yi ñi ko def ñu ciy remercier le DG encore une fois Saliou Keita ndax ba mu ñëwee sànq ci inauguration bi euh, programme bi c'était prévu pour les quatre comme tey cinq suba ak six dimanche mais bi mu ñëwee il a été vraiment séduit may ñu lënd nañu toog leen mayaat naa leen ngeen jaay ba lënd ci 18 heures donc loolu dañ ko ciy remercier bu baax a baax a baax di féliciter Dabaye encore une fois di ko encourager di remercier aussi ñi nga xamante ni ñoo am confiance ci moom ba ànd ak moom li nga xamante ni mooy kaay ma jaay la deuxième édition donc euh, yàlla na jàmm yàgg ñi ñëw tamit participer ñoom ñëpp yàlla na yàlla def bagage yi fii di yëpp jeex ndax kuy jaay ku jënd la bëgg waa kaay jaay la ku jënd amul jaay du am donc ñu ngi ñëpp ñu yëpp vraiment et que d'ici peu de temps ñu lu mel nii ndax xale yi ni ma ko waxee woon ci tàmbali bi bagage yi ñu yor dañ ko a jaay te pour ñu jaay ko foog ñu am lu mel nii Wally il va bien dafa voyageur mais il doit il doit venir aujourd'hui defe naa incha allah ñëwaat ban ñëwaat ban jubóo ban dama du mus a wax dama xuloog waale dama mus a wax dama mus a taxaw ci senegal yi ne leen dama xuloog waale waa li Sénégal waaw kon dama su ma am ak waali su ma am ak waali problème man dama am kenn problème boole. waaw. non non non amuñu benn problème. amuñu benn problème. man yaa ngi nii nga gis ma may jàppale Dapha. la nga gis ma ci télé bi may animé. la nga gis ma ci série yi may joué. waaw mun naa lépp ma defandoo ko à la fois. du logique. pare toll naa ci def sama yëfi bopp toll naa ci euh, am leneen lu ma def. loolu c'est clair ça n'a rien à voir ak joteeg waale man je suis né challengeur. lu ma def fukki at dama koy bàyyi defi leneen tu vois euh, ñaanal leen ma ma am sama yëfi bopp jotoo maag waale dara duñ jote dara jotowuñ dara Omaro ak ñeneen ñeneen raam daan bëri dañ daa dajee xajul Omaro ndax xaju ji yeneen Omaro ngi ñëw mais muy gën a baax noonu la ah, waa musique ak coow ñoo ànd waale coow da koo ji bu coow amul sax du baax. mais yéen ci man man loolu nag da ngay dem laaj gars man nañu wax ci maa ngi fii tey maa ngi fii suba maa ngi ci yeneen man je suis euh, boo nekkee ci dara day dem ba yàgg nga doon nga doon nga doon ci kilifa léegi kilifa laa nag na yoo xam ne talatuma ko mënatuma ko sama jot mayatuma ko. ña fa ne ña fa di ko def defin bu rafet macha allah yàlla na leen yàlla jàppale euh, si c'est important si c'est c'est euh, euh, bu fekkee ne besoin la tu vois on peut collaborer on peut faire tout ce qu'on pour aider quiconque pour aider n'importe qui je pas là pour Wally rek man je suis pour tout le monde ah bien sûr je la pour everybody man euh, sénégalais laa